salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziaraat di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér a wér di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di ñaan way dawlu suñu borom yërëm leen sa xaar leen sa àjjanay firdawsi ñu feebar tëdd si hôpital yi yàlla suñu suñu borom may leen liberté waa 4 waa 10 waa 21 fàttewu ma leen de su may mbokk su may xarit maa leen di bëggee bu baax di leen ziar maa ngi lay ñaanal suñu boro defal la tawfeex ak tayseer ba nga dellusiwaat si ñun di ñaanal Sénégal jàmm si at bi ñu dugg nii muy 2021 suñu borom defal ñu si tawfeex ak tayseer defal ñu si xéewal u saawaan baawaan kulum ku fu waay nekk rek yàlla na suñu borom defal la si tawfeex ak tayseer di ziaraat ñëpp di màggalaat ñëpp te nag ñëw fenn Seras bu ñu nee Seras ñoo xam ne force faaw ñu nuyu leen muy kenn si man muy Pape Diagne Seras kooku faaw ma nuyu ko suma mag la suma xarit la suma lépp la maa koy nuyu bu baax di ko ziar di ko jox wàccu waayam bu wér-wér ndax mbaam gàtt na waaye si jur gi la kon bu ñëwee Seras faaw ñu nuyu si ko te seet si mbër a ñëw Seras seet si ndaanaan seet si yaakaar koo xam ne kenn doot ko présenté moo fi def loo xam ne nee naa la mbër bu mag sax defu ko te si kanam tuuti dinaa leen wax li mu fi def mbër nuyu naa la <laughs> maa ngi lay delloo ziar bu baax naka tey tey ngi nii rek ñu sant Serigne Touba na yokk maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu samay mbokk fi toog ku ci mel ni Mamour Modou Samb ñoom ñaaw Samba sëñ Mor waaw Serif sama grand ñoom Baye Dame sama gars yi ne ci ginnaaw ñëpp maa di nuyu di di nuyu ñëpp daal di nuyu Balla waaw tamit si man la di ngay nuyu bu baax di nuyu waa Caaro yi Daaru Salaam maa nuyu bàyyi di lay nuyu yow mii encore waaw di nuyu jinne caméraman bi waaw moo moo daan moo daan kan. ay faxasal rek la moom ay faxasal la am maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp billaahi. ñu bëgg a xam kii wax mooy kan. waaw kuy wax mooy koo xam ne day jàng rek ci yoon la ne di jàng rek xamul dara ci yoon la nekk rek koo xam ni defagu fi dara daal waaw lu ne suñu kanam moo ëpp. lu ñu def lu ñu def defaguñ fi dara lu ne suñu kanam moo ëpp avantage quoi. nu ko yaa ban année la dugg si làmb at moo ko duggal si làmb am nijaay ju bëri wala mag juy bëri wala papa juy bëri. non nu ko yaa amul sa mbokk bii bëre. kon maa waaw ñun dañ doon fooyee bëre rek man école football laa ne woon waaw jékki-jékki bàyyi école football di fooy si bëre. waaw man miin naa football jaar naa école football deux ans Zuma jaar naa fa nekk di football xam jékki-jékki jóge foofu noonu di foo si bëre bi jékki-jékki bàyyi football nekk ci bëre bi noonu xam nga man nag maa ngi njëkk a bëree mbapat deux mille ay deux mille huit yooyu noonu laa njëkk a bëree mbapat. fan nga njëkk a bëree mbapat. Caaroy Alaaji Mbeex moo ma ko tëggal. Alaaji Mbeex mel waaw moom mës a tëggal benn tournoi ba ma ko jëlee mu jox ñu fukk ak juróom yooyu noonu ñu jënd. <laughs> fukk juróom. loolu yàgg na ba booy ñu ñu jënd ñu jënd meew fukki dërëm suukar juróom xama takkale yooyu noonu xama ci la nekkoon ba jékki-jékki yàlla def li muy def xama rek yàlla moom ay mbiram kenn xamu ko barki Serigne Touba. nekkoon ci ban écurie jóge fa dem ci waaw nu yaa benn braak mbooloo la la njëkk a ñëw nag waaw écurie boobu laa njëkk a formé woo quoi ñoom ñoo ma def mbër. sama carrière mbapat sama carrière mbapat man maa ngi ko bëree Caaroy jóge Caaroy suñu kër am ndox taa yooyu noonu après si lañ demee benn baraak ma nekk benn baraak mbooloo maak armée ñuy ànd loolu yàgg na ñuy ànd ànd bu yàgg may bëre mbapat di dem di jël ay tournoi di ñibbisi di bëri ay commandement di daan di ñibbisi noonu ba yàlla def li muy def ba ñu dugg arène maanaam si mbapat tey ji ñan la daan ñoo ne ñu ngi prouvé si arène bi wala ñi daan Nokia ñu ngi prouvé si arène bi moom doo ko dégg ñu ñi daan Nokia ñi am Nokia moo leen daan te tey ñu na waaw xëy na mi ngi am ndax booy bi la mi daan naa ko mbapat bu Malika waaw daan naa ko daan ko foofu noonu àll bàyyi ñaax moom xam na ko bu baax tournoi ko dama combat tournoi la mais boobu noonu après dama koo daan mu dem jëliwaat beneen joolaa bu ko ëpp doole mu ñëwaat ma jàpp ko daan ko ma daje benn booy final fàtte naa nu mu tudd sax ma jàpp ko daan ko. Alba ñaax non Al Mbabar ñaax laa amoon Alla Baye ñaax ci terrain boobu noonu rek. mooy doon tëgg. xam naa yooyu la ndax man daan naa bëre ba pare ba génn fa du ma xam kenn moo tëgg làmb xam nga. waaw defe naa yooyu la. waaw waaw waaw defe naa yooyu la man man moom waaw Valdo Yaraaf yi waaw Valdo fii daan naa ko fii ni terrain bi waaw boobu sama grand bi moom ma conseil conseil bu rafet gara billaay grand Mout Samb Kaacaaroy waaw mu ne Kaacaaroy nga de nga bëre Kaacaaroy jour boobu yàkkan la woon waaw Kaacaaroy bi maag Drago Rouge la maag Drago Rouge la lamb jooju lamb ju neex la woon parce que damaa xeeboon ko xam rek man ñi ma bëreel mbapat ñëpp combat nommé dañ maa xeeb waaw ay ponkal rek laa doon bëreel nag waaw mais yàlla moo bari sutura rek waaw man munu ma dara waaw munu ma dara man moom munu ma dara yàlla rek a mën bu sumee ko ma gis ñenn si ñi nga xam ne ñoo la sa galaaj naan kii xanaa bi ko nokk yaa di jëli gis ko woon wala ménagère bi gis ko woon. waaw noonu la mais man yàgg naa jël man xam naa ni man bu ma bëree kii dama koy daan quoi. waaw man man bu may ñëw victoire laa indaale waaw man làmb fu ma mun a dem bu may dem victoire laa yóbbaale damay gëm na damay daan man du ma gëm na ni damay daanu damay gëm na ni damay daan ndax looloo nekk sama xel te loolu laay doxee te entraîné naa lii daan mbër xanaa kay yàllaa ki dogalam waaw mais man fu may dem ci làmb damay gëm na ni man maay daan ndax am naa gëm-gëm boobu noonu am naa sañ-sañ bi waaw. arbitre na sa digganteeg yéen waaw dañoo bëre bëre bu yàgg arbitre daa sifflé mu daw këf sama tànk yenn ma sàndi ba ma sande ma cëppeelu mu dawaat mu mu remise mu remise jël tànk bi mu daw këf tànk bi ma jox ko mu lekk tànk bi ma ma dugal ko jàllale ko ci ginnaaw. waaw ma daw xàttar bi ko jàllale ko ci ginnaaw. ba mu fa jugee nag fan nga jëmaat. ba mu fa jugee ci laa amee Valdo mii nii. waaw Valdo yaraax ba ma fa jugee ci laa amee euh, ci laa bëree Esane Ndiarème maag Malick deux stade Ndiarème fii grand combat lamb ju neex sa lamb ju neex waaye boobu tam metti na trop. waaw lamb jooju métti na trop. <laughs> boobu daa mel ni sa carrière boobu doo ko fàtte. Serigne Touba lamb jooju daa métti trop lamb jooju bëre naa ko bëre bu métti boo xam ni booy bi cat demoon na ba xalam ma cat moo ci desoon bu ma bu ma tegoon loxo rek damay xalangu ji. mais yàllaa bëri sutura yàllaa ñëw rek. waaw métti na si yow métti na say supporter. waaw métti na trop boobu métti na trop lamb jooju métti na trop bëre neen bëre bu métti sa wallaay bëri nañ bëri bu métti ba Pape Tine syndicat moo ko doon arbitré waaw làmb jooju noonu maanaam làmb ji booy bi lu mu foogoon damaa xeeb moom tamit lu mu foogoon moo amul ndax dem na fu ne dem na àll bu ne di laajte di dugg ci biir àll bi di laajte xam nga mais tamit dafa xamul. moom lan maanaam di laajte kii nu mu tuddoog yu kenn xamul. waaw man wax naa ko signature ba nee naa ko man boo mu bëggee xam sama biir koñ ngay dugg ñu jaay la mais doo dugg ci àll di may laajte. àll yooyu ngay laajte duñ la nangoo jox sama tur ndax xam ne ni moom bu fay dem daa am leneen lu mu fay ut duñ la nangoo jox tur bi moom bëri neen ma daan ko ay mbokkam sa gëmuñu daan naa ko. tax gëmuñu ko. ndax ñoom xam ne def nañ si xaalis làmb ji man làmb def ma ci dara làmb ji bëree damaa entraîné indi bëre indi entraînement indi sañ-sañ ba pare xam ne ni kii dama koy daan waaw. ma làmb moom bu ma ñëwee ma entraîné ma taxawee damay xam ne ni kii dama koy daan bu ma entraîné dëgg damay xam ne kii lii moo ko war a daan buy daw ni bu ma xoolee tànk yi ñaari tànk yi moo xool damay xam ne kii fii laa ko war a jaar. kon loolu dañ ciy daan mbër ci xool tànk yi. ci xool tànk dañ ciy daan mbër. waaw mbër bii daw nii boo taxawee nii ñu lay sotti gàllaaj wala ñu lay jox ndox da xool tànk yi foofu nga koy jàngat da xam ne kii fii laa ko war a jaar. waaye yenn mbëri ndaw yi xamuñu ko parce que xam nga lu tax dañ ko maanaam dañ ko màggaalewul ñun bëre dañ koo foowe di koy màggaale ba toll ni ñu toll waaw bañ jógee école football rek bëre lañu foowe booy boo xam ne est-ce que yéen ñaa seen combat mos nañ ko dox wala mos nañ ko dox prison prison <laughs> prison mos nañ ko dox mais yàlla dafa dogal moom jàpp naa ko géeg contact neuf combat laa ko daan contact géeg moom benn la am man seen combat yéen ñaar bu ko dox ci kan la yàqoo ci moom la yàqoo prison daa lëmbe nga lëmbe. waaw dafa lëmbe moom wax dëgg yàlla non jamono yi dañ doon jàng rek waaw moom daa lëmbe moom champion la prison. daa mel ni côté bi nga nekkoon da leen jeexal nag. waaw dafa jeexaloon gars yi ma xam nga ma xaw a mer yooyu noonu xaw a siisu xam nga mais làmb jooju noonu bu ñu ko tëggoon gëm naa ne du yàgg sax xew a xippi la ndax dafa oyof quoi. ñii xool jëli ñii xool bu ñu vigilant duñ gis jëli. ah ñii xool jëli. waaw bu ñu xool bu baax. duñ ko gis ndax day gaaw ndax xam nga lu tax moom daa oyof waaw mbër non man mbër bu oyofee bu ma la fa fekkee du du mbërëntaan du fa feeñ dara du fa feeñ dama lay tonni poids lourd waaw poids lourd la ay nga ay poids lourd ba taay waaw loolu dëgg la mais tamit poids lourd ak poids léger xëy na man sama xeetu bëre bu ma fa fekkee ko oyof du ma la fa bàyyi bu sifflé bu ma la tonnee mun naa la mun naa la jàllale ginnaaw euh, stade stade bi nga dégg li fi wax fi mu départ ci mbapat ba fi mu yegg si tey xale yi fi daan waaye combat boobu nag bëggoon nañ ko mbapat digganteem ak prison ndax boobu prison dafa jeexal ay moromam moom li nuk yaa jeexal ay moromam ñu nekk ñaari adversaire yu xaw a tolloo combat boobu bëggoon nañ ko trop nag waaye xëy nag gëmuma dina amati nag <laughs> gëmatuma tey ñu ñëw si arène nag nuk yaa premier combat fan la at kañ la woon oui sama mois de mars la woon waaw mois de mars xaw mois de février làmb jooju noonu sept jours laa ko jël. ci une semaine jour waaw ci une semaine laa ko jël. ñii ñoo tax ma jël ko sax ndax ñii dañ ma doon wax ni ba xam ndax yaa ngi entraîné man leen waa maa ngi entraîné bu dee ñu ne ma bu dee ñeme nga jëlal avance bi looloo ma jël loolu làmb ji mais mu dox ba ci kanam mu tombeek sama jouru ngénte làmb jooju sama jouru ngénte la tombeel waa bi lekk ko pare. waaw lekk naa ko ba pare ñit ñi naan ani leen ngénte gi ñi naan ajal ngénte gi man leen lu yàlla def kenn munu ci dara xëy na tombeek yàlla la te daa am lu luñ ci war a confirmer waa ci yoon bi la bokk. ci laa dalale gan suba si noonu ñii ñëw ma dalal leen ba deux heures gars yi ñoo ma xamal ni sa damaa war a bëre ñu ne ma yow da ngaa war a bëre man leen man fàtte naa ko sax ci laa demee ngemb ji jour boobu ñëpp ñëw nañ teew jàppale ma. ba pare. gaa yi ñëwoon tudd ànd ak yow dañoo ñëw tudd ànd ak man gunge ma ma ngeen mu dem Esat. waa ma dalal gan yi voilà dégg nga sama garaa bi loo wax. loolu si histoire lamb man boog si man si li ma jot a gis si ndokk yaa laa gis. non loolu dëgg la sant yàlla la rek. waaw c'est la première fois ci lamb nag mu ngi door am. bu ma dalee suivre lamb ba léegi la première fois ma gis mbër mu ndaw bu def loolu mbër mu mënut doon te maa ngi ko soog gis. noo dëgg la loolu mbiru yàlla la. waaw ba may génn ci buntu kër gi sax tuur xéwal dama dem cooy waaw waaw ndax gars yi ñu bëri amuñu woon yaakaar damay daan mais dama taxaw dama taxaw waatal leen ci bunt kër gi man leen billaahi wallaahi watallaahi dama koy daan ñibbisi moo tax làmb ji arbitre ba mu sifflee rek waa ji dama dama dama dama koo teelu damaa topp ma peese ko ma ma xàcc mu daw ma mébaat mu daw ci laa ko dóoree tëf tëf mu nar daanu ma topp ko ma mbete ko ay coup mu nar daan maa moom ñu bëre bëre bu met ma jàpp ko daan ko ñibbisiwaat continuer ngénte bi. Ah, ndax soo xale bii di bëre def na ko fi war a tudd tudd rek daw ñëw fii boobu nga waat si kër gi. waaw ci laa ñibbisee si kër gi xam nga. nga fa bàyyi nga ñëw indaale mbégte. waaw indaale mbégte loolu noonu. loolu lu doy waar la daal. loolu lu marqué sa carrière non loolu dafa marqué moom wax dëgg yàlla loolu marqué na trop ndax loolu loolu lu waroon a am la rek woy lu waroon a am la te te làmb la daal làmb moo demee ñu ñun ñu dara ci làmb billaahi ñun duñ tiit ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko lu ka moom tu tànk boobu woy ñu ñu ngi koy ñaanal moom laa tuddee sama papa waaw moom moom moom sama papa daa wàcc liggéey rek après ci la juddoo noonu yàlla yërëm sa xaare ko àjjana tur bi yàlla na sut turandoo aw fan ba ko ñaanal fu mu toll amiin amiin amiin nga waaw sama deuxième combat maag Boylo la. Boylo bu écrit euh, Yékini Senior. Dóor waar. waaw moom la. billaay. góos bu neex bi. waaw jour boobu ñii ñoo ànd oh, bu neex ba la. waaw maag moom bëri nañ bëri nañ fa daal. ndax moom it dafa ñëwoon indi xeex. sama benn grand tin moom mu ngi Touba sax moom moom moo doon bëre Baaba Maal mu ñàkk ba mu ñëwee mu ne ma kii day entraîné instant xeex la entraîné bul xeex làmb jooju ma taxaw di koy déglu teelu ko ma xam ni kii léewtoo rek la fi nekkee ci laa dawee dóor jàppante moom mu fàq ma ba ma fàqee ci laa demee noonu teg trois mu yaakaar ni quatre appuis la mu daw di may topp wër ma ndoom ma daw tël ko tourné jàpp ko xam nga ñu bëre noonu noonu jékki xaw ma nu mu def ba daan boppam. <laughs> dafa daan moo daan boppam làmb jooju. ku ne daanoo làmb jooju xam na ni bu ma ko jàppee dama koy daan loolu doon daw ba daan boppam. mu marqué sa deuxième victoire. waaw mu marqué deuxième victoire bi te loolu tamit sant yàlla la rek. di ko yaat dal ci kan. laa dalee ci booy ñaa notaire. booy ñaa bu notaire. Mm-hmm. booy ñaa bu notaire. booy ñaa bu notaire nen billaahi jour boobu tamit xam nga ñii moom xam naa ne ku ma gis di nga leen gis ci ginnaaw ñun xam ci laa dalee ci moom ñu bëre foofu noonu moom boobu moo papaam ñoo ànd. waaw moom papaam ñoo ànd stade bi papaam di wax rek di may joxañ man nag bu may daw ci stade du ma ko xool quoi mais bu may daw nii man lay bàyyi xel sama bët yi mu ngi lay catal. waaw papaam di wax di may joxoñ ñi di dóor ay fas di def nii rek ma koy xool rek di ree xam nga te xam ni tey làmb ji dañ koy ñàq waaw ndax làmb da nga koy pare mbër bu ndaw dañ naan day pare du préparer boo ñëw ba ci làmb di préparer di indi ay fas yu kenn xamul loolu dalay lay sonal rek entraînement mooy lu njëkk waaw moo gën a wóor entraînement nit dangay ngay entraîner nekk sa bopp ba làmb jot nga xam ni foofu lépp mbër day complété mbër du xaar ba jour ba ngay indi lii di indi lee xam nga loolu dalay lay sonal. moom parewul ba ci jour bi. parewul ba ci jour bi xaw ma nu mu demee noonu xam nga ci laa ko arbitre si mu daw topp moo dóor ko gauche droite mu nor a daanu. <laughs> waaw waaw dóor naa ko gauche droite mu nor a daanu. daa detteendu quoi ma daw topp ko ma mépp ma daw topp ko mu dugg ma ci lu ma duggee daw zongale ma jugu ma mu zongalaat jugu ma ci laa ko zongalee daw kal ko caabi ko ci kaw waaw waaw dama koo caabi quoi dama koo lonkal dama koo dama koo zongale ah man gauche droite man ñaari tànk yëpp laay bëri dama koo zongal ba muy jug ma caabi ko bàyyi ko mu ñëw waaw mu romb ma daan ko romb ko dem maag moom noonu la demee. boo ñaa nga marqué sa troisième victoire. waaw waaw waaw. jugee si koo dal. man maa ngi dal ci booy boobu noonu ñu naan bébélees. bébélees man bébélees ba kii di Balla Gaye fa laa dali mais làmb jooju dama ko muje ñàkk waaye dañoo bëree bëree maanaam làmb jooju ndogal yàlla rek moo ñëw. boobu mën ngaa wax ne est-ce que nañ la nga xam nga li ko ñàkk li la ñàkk loolu combat bi est-ce que xam nga ko. làmb <laughs> jooju non non làmb jooju xanaa kii nii moo a wax lu leer quoi. doon daan ak kii bokkul. ngeen daanu rek mbër mu daanu day bëri lay mbër mu daanu day am lay non non dul waaw daa bëri ci gàllankoor waaw daa am yeneen ak yeneen yoo xam ne yu ci bokkul woon la parce que mbër da ngay toll ci dynamique boo xamante ni say mbokk dañuy mujj ñëw dugg si ci biir làmb ji ña nga doon àndal dañ leen di génne lu ci bëri la nga daan liggéey dañ koy jaxase soo xoolee combat Nokia bu njëkk ak combat Nokia quatrième combat am ña ko doon topp ak ñi ko topp bokkut parce que mbër da ngay toll foo xam ne say mbokk dañuy ñëw génne ñi nga xam ne ñoom nga doon àndal démb say bagage ñoo ko xam tamit lu ci bëri jaxasoo soo xoolee combat bi que ñun dañoo dugg si stade rek ñun dañu kaa leen bëre loolu moo ñu ñàkkloo suñu quatrième combat mais du entraîné parce que li ñu war a entraîné entraîné nañ ko fañ daan dem dem nañ fa mais ñi ci bokk ñoo ci dugg ba ñu ci bëri dañoo siisu rocceeku demuñu woon stade man mi di wax keroog ci kaw tribune bi laa taxaw parce que wàccu ma soo xoolee ñi mu àndaloon combat bi yow bu fekkee yàgg ngaa topp Nokia da ngay xam ne ñii xamoo ci kenn yow ñun combat boo xam nañ li ñuy ñàkkloo mais du doole du bëre du xeex waaw parce que boo xoolee la ñu bëree keroog mosuñu ko bëre sax ci suñu làmbu parce que ñi xamul Nokia waaye ñun ñi nga xam ne xam nañ Nokia ñun xam nañ ni Nokia loolu daanu ko daam leneen lu ci laxasu mais après ci kanam tamit lépp ñu ngi koy rectifier parce que li ci laxasu woon lu ci bëri génnee nañ ko ñu ngi waat ci suñuy entraîné ñi ngi entraînement ñi ngi teel a tëdd yaa ngi dégg ñi ngi liggéey daal li nga xamante ni ñu war a jëmale waaw di ñaan yàlla tamit defet moom yem fi parce que ñun loolu lañ programmé parce que daa am ci yenn dynamique yu nekk daa ñeneen ñoo xamante ni ñoo bokk benn génération te ñun jàpp nañu génération boobu ñu nekk tey ñun ñooy ñun ñun ñoo ciy topp. génération bi comme ñan la. non xam nga boo bëri na ci ñoo xam boo tuddee tur dañ naan da leen di may bës. moo tax mbër mu ndaw amul may bëre ñu ba génération la non non am na ci ñoo xam ne tey boo toogee boo waxee seen tur dañuy wax ni kom kii bi ñuy bàyyi xel waaw te mi ngi ci combat bi bis mi ngi waaw ba ba ay Baye Ma Ndiaye boo yooyu yëpp tamit xam nga benn instant nii bu njëkk léegi la ñuy tudd sax di di leen tudd mais ñun boolewuñu leen woon sax parce que tey bëri na ci boo yoo xam ne tey bu ñu doonee mbër tey Nokia moo tax ñu doon mbër parce que Nokia bi mu bëri premier combat bëri na ci ñoo xam ne nangu dem parce que lu ñuy wax bu demee daanu parce que ñun booba xam nañ ko ndox yaa koy tegal fukki dërëm mu bëree ñu tegal ko juróom mu bëre yaa man kii kii la man day bëre lu leer laa lay wax dama lay wax fii ay mbër yoo xamante ni boo leen laajee mooy Nokia ñoom xam nañ ko mu leen di daan fii billaay laajal ñii ñëpp fi toog bi mu leen di daan ko wax ne Nokia mun na daan kii da lay wax ne la déedéet Nokia munul daan kii lu leer laa lay wax parce que ñun xam nañ ko yàgg nañ ko topp xam nañ mooy kan mais après na ñi xamul moom Nokia da leen di jaaxal bëri na ci booy ay ñoom Moussa Ndiaye yi ngay gis ni booy yëpp tey Nokia moo tax ñu bëri bi mu bëree premier combat am laajal Pape jaañ bi mu xëyee lopp ay 30 booy dañuy ñëw ci moom ni ko defaral ñu licence dañuy bëre parce que ndax lan sa mbër bi bëri démb kon ñun benn saa ni tey li ñuy ñaan rek mooy nañu ñëpp ñaanal yaa ngi dégg ci des li ci kanam daal rawati bët allah. yaa nga dégg li wax dafa am kàddu gu wax si biir i wax. mu ne bi ngeen i départ yéen ak ñoom la nga dem ba sa quatrième combat mbokk yi ñëw nga yaakaar ne mbokk yi dañuy ñëw avant waaye dañuy bàyyi ba mbër mi dem ba làmb xam ko ñu soog a ñëw puus ñi fi nekkoon pour bëgg tax loolu lan nga si wax. non dëgg loolu boobu lu waroon am la rek jaxasoo bi bëri woon na ndax instant yi noonu ku nekk dem na di préparer ñëw fekk affaire yi jaxasoo xam nga boo waree ñàkk affaire yi day day day indi leneen boo waree ñàkk si làmb man xam naa ne maa ngi dem mais du baax du baax ma man dama gëm ne damay daan mais xam naa ne du baax yàlla mënoon na ñëw sama kaw ma jàpp ko daan ko bëri naa jour boobu ba mu wër ma ndomba ba ma dindi ko ba estade bi jóg mais xam naa ni jour boobu noonu li ma doon sentir daal. nekkul jouru ndam waaw nekkul jouru ndam ndax ba làmb ji ba ñu nee tey la làmb ji sama bëtu càmmoñ da doon raf rek ma xam ni tey jàmm amul de. waaw ma xam ne jàmm amul tey bu ma daanoon tey sama benn waay mun munoon nañ ko gaañ xam nga noon nañ ko gaañ wala dara jot ko moo tax balaa loolu di kay dal man mu dal sama kaw ma daanu moo gën quoi ndax man yéenewu ma kenn lu bon yéenewu ma kenn mu gaañu si man ñi ñu ma ñii ànd ak man xam nga làmb la woon rek waaw di préparer tamit maag saafaandu bu écrit Malick Niang xam maa moom ñoo war a laale. combat tamit taxaw na d'accord waaye bi ñibbisee nga daan ñibbisi at ndam bi nga ñibbisee sa date quatrième combat am défaite. oui loolu dafa ko <laughs> non loolu dafa doy waar quoi <laughs> non loolu dafa doy waar man loolu defuma pression maanaam ñu ma àndal ñoom laa doon sóoraale ñoo tax sax ma jooy après damaa sëgg jooy bi ñu ma doon àndal ñëpp ñëw naa ma lii yëngaluñu lii yëngaluñu xam ma ma xool leen rek jooy ba mu duggee sama koñ foofu yëpp a wéet kenn yuuxul kenn waxut xam ma mel ni daa lu xew ci koñ bi man après man damaa tiir sa damaa xoolaat sama bopp ma ne ko man nit ñi tolloo naa leen fii comme loolu noonu gën a yokkaat entraînement yi après xoolaat affaire yi lu jaxasoo woon après ñu rectifié waat ko tegaat gars yi xam rek waaw tegaat ci code. lekk avance nag lekk nga avance de. non loolu mun naa la wax ne avance la du avance. tax ndax ñun kooku jaaxaluñu. waaw sa nga jël avance nga jaaxalu la moom moo ko soxla woon rek waaw loolu jaaxaluñu parce que xam nga lu tax man bu ma entraîné dëgg pour man Yékini sa wala Bombardier bu taxawee sax dama koy daan billaahi wallaahi wa taalaahi xam naa moom day tëdd di nelaw man bu ma entraîné moom bu entraîné woon ah lekk protéine yëpp senegal man ma entraîné dëgg teg ko ci yoon wallaahi azim arbitre bu sifflé bu ma ko fa fekkee dina xam ni mbir yi duñu benn sax foo fekk loolu moom moom moom mu entraîné ànd ak ay mbokam nga entraîné ànd ak say mbokk nga doog ko fekkee non man xam naa man xam naa sama bopp bu baax man xam naa sama bopp man xam naa ni man bu ma entraîné dëgg taxaw ma entraîné dëgg nit ñi xool ni kii am na entraînement indi na ay mbokam ñu mu war a indi xam nga ñu koy topp ci làmb arbitre sifflé taxaw wallahi làmb ju yàgg waxal moom mi ngi lay seetaan waaw làmb ji du yàgg man saafaandu man saafaandu man loolu noonu mun naa wax ne du làmb saafaandu xëy na jógee ci tolof tolof moo ma yóbbee ci moom mais man dépassé naa ñooñu man ñu may teg sama bët xam leen ko bu baax. nee na da ngaa jóge si tolof tolof sa dala si delloowaat. waaw loolu loolu ay waxam la rek maanaam loolu waxul mbër la man du ma waxantu man ku ma xam ci làmb man jour signature lu ma la wax man loolu laa appliqué def ko dem ñibbi man ñëpp xam nen ma ci loolu noonu xam nga man daam fu ma jugee moo tax ma jël ko bu ma fa génnee samay morom nañu waajal bu baax xam nga nañu préparé bu baax te xam ni maa ngi ñëw seen kaw. nee na bii nii yow yaa ko bëgg ndax yaa ko jël ngir bëgg faj mer nee boo amul chance dëgg mer da la siy fekk non loolu ay wax la rek moom lu muy wax noonu ay wax nag sa yooyu noonu kenn xamul gëm la gëm gëmu ko xam nga ba moo ko waa xanaa balaa ma koo gëm dëgg-dëgg ñu ñu jàll ci làmb ji après combat bu arbitre sifflé dëgg wallahi azim laa lay wax ni bu xefee dama koy dóor mu daanu dóor mu daanu waaw loolu man fii waaw moom li ma koy wax. billaahi bu arbitre bi sifflé bu xewee dama koy dóor mu daanu. waaw lu ko yaa bu bu démb ak bu tey du benn changement dafa am lu bëree baree bëri man maa ko wax fii billaahi wallaahi man maa ko wax fii changement am na lu bare baree bëri bu mu daw rek na taxaw. Safaan moom du daw moom ñëpp xam nañ ko. du ma daw dañuy taxaw ñu tracé. bu bu neexee jour signature ba reliquat bi dañ koy teg ku arrière ku teg sa tànk ci ginnaaw ñu dagg ko wala mu jël reliquat bi ñu may ko. làmb ji sax dul yàgg bañ dawante ba ñuy taxaw man ñàkk ma fayda yabu ma yabu ay sama supporters yoo xam ne damay taxaw foofu noonu di benn bennal arbitre bu sifflé dama koy dóor. bu bu wat bu ma jàppee ca àll ba laa ko jëmee. yabul ay supporter booy taxaw di benn benn rek yow nee na. waaw loolu dëgg la moom yabul supporter mais nu ñu bàyyi ba bis ba rek. waaw bis ba lay door a comprendre lu xew yooyu noonu. xam nga affaire mënuñu koo xam fii nii xam nga làmb daal nañu ba jour ba rek dina xam lu xew. moom dina xam lu xew di nga xam lu xew nee man mënu xamal lu xew ndax xam lu man bëre naa façon mbër bu ne boo yooyu dañuy màgg dugg ci làmb bëre man bëre dama ko màggaale waaw dama ko foowee màggaale ak moom man bëre xëyu ma rek bëre man dama màggaale ak bëre. moom tamit daa booy lebu yooyu noonu ken màggaale yu si bëre. ñoom ñu dëkk ci taatu tefes gi. bu ñu dëkkee ci taatu tefes gi boobaa fa koy delloo bu ma ko jàppee boobu dama koy delloo foofu. waaw. ah fo ah, ah, ah est-ce que bëre ko. musu ko bëre <laughs> billaahi. ñun espoiru làmb ji ko def. Ah. ñu bëre combat 75. non moom moo fi def li kenn defut. tudd bëre ji ñëw ñëw daan loolu moom si espoir làmb moo ko def léegi fi ñu toll nii nag ñu ngi si cappaandalu bi comme li ñu cëralee woon si waxtu presse mu ngi si mu ngi si cat gi. tey jii lan ngay wax sa supporter lan ngay tàggatoo fii ñu la fekk ni muy Seras. waaw seraas maa ngi nuyu waa Seras yëpp xam nga di nuyuwaat ñëpp daal di leen di leen xamal ni Nokia ñëwaat na te Nokia bu ñëwaat beneen Nokia la waaw du bu dubu bu doom gis nii yu jàll ci ginnaaw xam nga dafa ñëwaat indaale yeneen gaayam yoo xam ni ay nitam leen quoi. ku ci mel ni Mamour Mamour Samb maa ngi koy sant bu baax moom day nangoo sonn sama làmb ko xama rek te xama nit moom ku toog sa xool maanaam ñu lay jàppale doo leen fàtte ba keroog ni ngay yor bis boo leen fàttee rek ñu xam ne doo gor waaw as gor du fàtte ay nitam ñoo xam ne yéen a ngi toog di waxtaan xam nga Balla xam nga sëñ Mor ñoom sama làmb ji jàll ñoom jàpp nañ ci baax jàpp nañ ci baax a baax ba ma gis sama bopp sax boobu daa am nu mu demee woon wallaahi mais normal normal ñoom laa waroon ànd mais jaxasoo bi rek moo ñëw waaw jaxasoo bi daa am nu mu ñëwee dafa jaxasoo kama di nuyu grand frère yi xam nga di nuyu waat ñëpp di nuyu Baye daam Serif ñoom Aliou Yarax ñoom maa ngi nuyu bu baax ñoom gëm booy gëm xam nga ñaaw xam nga ñoom diib grand diib bo ñoom Habib maa ngi nuyu ñëpp xam nga di leen di xamal ni tamit affaire yi mi ngi ñëw làmb ji mi ngi ñëw. waaw ñun defaguñ dara ñun ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw barki Serigne Touba. billaahi waaw. ay ñoom Balla Balla Ndior ne <laughs> moom sama waay la kii. billaahi kii ñii ñoo may encouragé ñii fu mu toll nii ñoo may encouragé pour ma gën a entraîné ñu ne ma bul découragé wu. bul bàyyi. mais ñoom ñoo may gën a jàppale instant yi pour may entraîner nekk si li man ne man xam naa ni yëg sama bopp ba ma commencé ànd ak ñoom ba léegi yëg naa sama bopp man xam naa loolu mais nit du wax boppam waaw nit day noppi rek nëbb nëbb xam li nga yor noppi jàpp sa jàmbur waaw ñun xam nañ suñu bopp bu baax di xamal ni bu yaboo Mali kii nii saafaandu na waaj bu baax <laughs> wallaay na waaj ah, waaw jaxatoo ngi meññ te kenn yëgut te kenn yëgut waaw waaw saafaandu jaxatoo ngi meññi te kenn yëgut xam naa ni yëgoo lu jaxatu di meññi waaye boobaa ni nga yëg lu jaxatu di meññi xam ne bii meññi kenn du fekkee waaw waaw kii mooy Baye Dame bu sëñ Abdou Karim Fall waaw kii mooy buuse sëñ Abdou Karim ñu lay remercier waat bu baax a baax di la encouragé waat nga gën a góorgóorlu gën a xam fi nga teg sa tànk di wax ñi fi toog nii du sac de sas la gën a la lu dañ laa sas nag gën a la góorgóorlu gën a xam fi ngay teg sa tànk waaw sama gars yi mi ngi noonu man nag tey suma jinne caméraman seen émission seeti mbër tey ñëw seeti kan xale di yaakaar di ndaanaan fi mu dëkk muy Seras ak Caaroy kooku yëpp yaakaar ko waaw di wax mu gën a góorgóorlu gën a continuer di wax euh, man nag suma jinne caméraman di nuyu kenn si man muy suma jigéen boobu soxna Fatou Faye amal jàmm ju bari yaay Fall bi dundal bari doole ak Fatou mu waaw yaay caat bapam buur di leen bëggee bu baax di leen ziar di wax mi borom jàmm nag sax kum jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla defal jàmm ndax garab boobu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doot ko yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu taw di dee beneen émission beneen champion fii si SBT Média kese rek donc Aladji Mass doxalal ñu dem